daleen ak jàmm jamono ji ki yëngal jamono mooy di soxna Aida Diallo bu Cheikh Béthio Thioune bu ñu sukkandikoo ci cantakon yi ci ab contexte boo xamante ni ñu bëri ci jigéen ñi ñu ngi xëccoo leadership féminin ci secteur bu mu mën di doon waaye soxna Aida Diallo defut loolu muy farata ndax moom dundam gi yépp daf koo jël jagleel ko liggéeyal sangam bu tedd booba di Cheikh Béthio Thioune ba loolu waral sax tey ji ñuy dégg fu ne turam ci àdduna bi kan mooy soxna Aida xamante ni jamono ji jiite na ab mbooloo mu takkoo takku ñu leen di wax les cantakoon soxna Aida Diallo wala Aida Saliou ni ko ñenn ñi di woowe mu ngi cosaanoo diggante Dagana ak podoor muy doom ci Yaram jàlloo Yaram Diallo nag nekk doom ci Bakary jàlloo di ancien tirailleur sénégalais bu yàggoon loolu ci réewum France avant muy dellusi fii ci Sénégal nekk ab chef de kanton ca Podor moom Bakary Diallo di maamu Aida Diallo boo leen fàttalikoo sax intitulé Force Bonté te ñu ko ci atum mille 1926 soxna Aida Saliou comme ni ko cantaakun yi di waxee mu ngi màggee ci ndakaaru ci benn kër tàntam yaayam nag mu ngi bokk ci askanub séeréer nekkoon soxna soo xamante ni dafa sacrifier dundam ngir liggéeyal borom këram moom yaayam joojee sax dafa promettroon kii di bàyyi Aida Diallo ni dina am doom joo xamante ni dinañ ko xam dinañ ko dégg soxna Aida Diallo mi ngi jànge ci Dakar capitalu Sénégal ci ay conditions yoo xamante ni demewul woon noonu loolee li firndeel moo di da doon ànd ak tàntam bi ko verre di ko jaayle ay sachet bisaab ci marché yi ndakaaru yi Aïda Diallo nag teel na intéressé wu ci mbirum cantaakun yi ndax mu ngi màggee diggante Fass Gueule Tapée ak Colobane te quartier yooyu Cheikh Béthio dafa daan amal lu bëree bari ay cant soxna Aïda Diallo bi mu amee 12 ans maanaam fukki at ak ñaar ci la jébbalu ci Cheikh Béthio Thioune mu nekk nag ab taalibe bu dëggu lool doon jëfe ndigal tey bàyyi tere Cheikh Béthio Thioune xam ne lii du ay nungu giigeet ko ɗum o anda giigeet ci anda riir nii tamli ci bëgg sooy lool fi nu Ndeye Issa lay sant xam lépp moom bu doon nun rek nun ni tële nañu fekk lu cosaan ba bëgg koo di ko dëgëral te buñ nee cosaan mu mel ni lu dëgëral la lu wér get low. Ces statuts ces événements, ces situations de circonstances que les diverses sociétés ont traversées. déedéet cosaan fa yàlla cosaan fa yàlla moo tax léeg-léeg ñu accusé cosaan naa cosaan nangam fekk cosaan lu récent la ñuy wax lu bëgg dem boo jaay ñu tuddee ko cosaan cosaan fa yàlla lay lijjantiloo rek Cheikh Béthio lijjantiloo rek yoon murit billaay li jënd la société sénégalaise. ànd ak yow soppeeku gi wala bëddiku gi yees gi kéemaane gi maa ngi leen jóge. si si ndam lii ngeen am man ne du ci ndam. jërëjëf. jëfati